mais père keroog dañoo gis 45 minutes. du du du du roofaloo bu ñu roofaloo taxaw nii rek loolu moom defe naa andu fa amateur yi parce que 45 minutes ñëpp dañ ne bu doon Balla Gaye Eumeu Sène mii ngay wax nii tey seetaan naa ko nee na bu doon la Balla Gaye kenn waxu ko fa Eumeu Sène nee na combat yi gën a neex man maa ko bëre ndax 4 match nul moom la de moom kese moo ko fi def moom Eumeu Sène moo ko génnee ci ay kàddoom. waa école bi Lac de Guiers la Lac ngi génne ci école boo xam ne ku ñuy wax Alioune bu waalo moom moo ko jàngal bëre te Alioune Seye bu waalo bu la mosta daan doo ko daan kon école Alioune Seye la génne kii génne école Balla Gaye numéro un Balla Gaye numéro un mësta niil ci àdduna dafa lay daan wala nga daan ko kon nag ku am sa doom di ko yóbbu ci école yi yaay choisir professeur bi koy jàngal loolu rek mooy wax ji làmba ja la fa am la dëgër moo ko def te maa ngi témoin di jéggulu amateur yi di jéggulu ki tëgg làmb ji te xam ne ku fay ñaar fukki junni bëri nga bëgg a gis ku fay juróomi junni bëri nga bëgg a gis ku fay ñaari junni bëri nga bëgg a gis ku fay juróom benn téeméer bëri nga bëgg a gis ki jënd ci site internet yi nekk ci Europe bëri la bëgg a gis mais dama lay wax ni ñaari mbër yi bu ñu leen daan tëkkalee bokkuñu ndax bokkuñu ñi leen jàngal bu dee ci wàllu xam mu bëri alin Seye mu ëpp xam-xam Balla Gaye numéro un xam-xamu bëri waaye nag bokkuñu ni ñuy jàngale bëri ba tey may wax ni Balla Gaye numéro un jàngalul Balla Gaye numéro deux bëre Balla gay numéro deux yàllaa ko jàngal bëre te ku yàlla jàng ku yàlla jàngal bëre nga mën a bëre loolu moo waral ñaari combat yi bokkuñu Lac li mu mën la def Eumeu Sène li mu mën la def mais Eumeu seen keroog bëriwul Lac de loxoom dafa damm bëre naag benn loxo yàlla may nanu ndam mais Eumeu seen xanaa sax waaye daan na Balla Gaye deux fois daan Lac de Guiers nii la moom ñëw rek bëgg dina noggatu xanaa ñun dirigeant wu géejaw yi amuñu expérience ñun ñoo gée loolu bi combat bi di see cinq minutes man maa dugg ne lak xanaa sa loxo bi dafa yëngu mun ma lax loxo bi dafa damm ma ne ko cinq minutes moo des ci combat bi géré ko man fekke wu ma surtout combat bi avant la combat man génn naa stade bi kon nag Pikine sumay njaboot lañu géejawaay suma njaboot lañu te man duma ragal te ku ma seetaan xam ni kii di wax ko am xam-xam la ba nga laaj ma leneen